barki démb laa si naroon live live mook si ba démb si lañ ci live am na ñu nekkoon fii jot seetaan live bi xale bu jigéen bi peut-être dina dugg mais xam ngeen man bu ma defee live ngeen gis des milliers de personnes di seetaan dañ koy partager fépp ba si YouTube bi ba si TikTok bi ba si Facebook mbokk xale bu góor bi seetaan nañu live bi xale bu góor bi si boppam di jëkkër ji seetaan na live bi. Hmm. coow am na de mhm. parce que aada moo toog na fii démb nee na ma Kaliphone xoolal noo def ba am numéro xale bu góor bi woo ko ñu déglu version fii la ko waxee yéen ñëpp ñu si bëri ne Kaliphone wàcceel Adamo Adamo dafa soof dafa ñëw pour yàq live bi wàcceel Adamo ma bàyyi ko fii rek moom it parce que war na participer xalaatam ñu live fii ba yàlla dogal xale bu jigéen bi expliquer lu mu jotu dund ngeen déglu ko yéen ñëpp nag ba mu paree it ubbi nañ fi Wave man yónnee naa si même bu sama fukki dërëm yéen it am na ñu si yónnee am na ñu ma contacter TikTok bindal ma ne ma Kaliphone man dama moom école kooku jigéen la je pense dama koy nuyu mu ne Kaliphone man am naa école am naa samay bus jox ma numéro xale bu jigéen bi comme ça doomam ma andi ko muy jàng sama école bu dee soriwul Dakar bus si di ko jëli gratuitement mooy lim la noonu wax sénégalais dafa baax. capturé naa loolu yónnee ko xale bu jigéen bi ba xale bu jigéen bi nara woo kooku mais dafa am lu xew parce que fii du ñu déglu benn version rek ne yaa am dëgg parce que jamono yële passé am na xale bu jigéen bu nekk Amérique ñëw na fii joxe benn version mooy dof boobu nekk ci TikTok bi fan yi di saaga rek nga xam ne aw ma jotam sax wax dëgg fa yàlla ab dof moom bu toogee di saaga jigéen bu xel bi dem nga toog fi naan nga koy tontu <laughs> da perte temps mooy mimi dof boobu. ñëw na fii wax ay waxam gendarme la dajel patati patata mu toroxal ko mu lii xale bi amul kayit nii kana gendarme bi dégg seetaan ko ay mbokkam dégg ñu yónnee ma les preuves que yónnee woon na ak audio yi ñu koy saaga ma ñëw teg ko fii xale bu jigéen bi mer c'est son problème parce que nekk nekkuma fi pour moom lu mu bëggoon mu ñëw fii mu fenn gendarme bi contacté ma ne ma Kaliphone kii waxul dëgg mais preuves sont la ma ne gendarme bi duma la tegal say preuves du ma doxee noonu du ma joobee noonu waaw kii nee na Kali euh, oui Kali element m'a appelé pour l'école ok DAPS bii la DAPS DAPS bii moo ma contacté na ma Kali man dama am école xale bi laa bëggoon dugal sama école gratuitement jëli ko samay bus gratuitement DAPS jox ma numéro jox naa ko xale bu jigéen bi DAPS nee na xale bu jigéen bi contacté na ko mais DAPS nag dafa am lu xew si diggante bi nag nañ toog rek ñu déglu. xale bu jigéen bi ñëwoon fii démb si live bi dafa leen yégal ni que dafa am jëkkër jëkkër ji mu ngi France mais balaa muy am doom la ñibbi kër yaayam parce que jëkkër ji moo ko ne woon demal sa kër yaay bi mu demee toog kër yaayam xale bu jigéen bi di accoucher après ñëwoo woo jëkkër ji jotu leen ba noonu mu accoucher ñu césarienne ko si diggante bi xale bu góor bi may ko baat boobu ba léegi xale bu góor bi nangul toppatoo doomam ba xale bee ngi ni am na ñeent bëgg na ko sax dugal école mënu ko dugal xale bu góor bi xale bu jigéen bi nee na doom bi da koy audio xale bu góor bi liir audio yi du ko faale léegi nag famille xale bu góor bi ñoo ma njëkk contacté muy raq xale bu góor bi cousine yeeg bàjjan yeeg tante yeek turandoo yeek njëkk yeek ba si xale bu góor bi déggante nañu dina ñëw si live bi yéen nag yéen fi toog pour déglu parce que nag wax bu dofee nopp yi day wér bu ko defee ngeen mën a dugg yéen it wax lu xew lu ngeen ci xalaat joxuma kenn dëgg mais comme démb xale bu jigéen bi dugg na wax na xale bu góor bi dina dugg wax famille xale bu góor bi dugg wax yéen sénégalais yi ngeen déglu bu ko defee ñu xam du bu ko defee ñu xam. xale bu jigéen bi zone de captage la dëkk xajatu si la tudd. am na ay raq papam la dëkkal yaayam dafa gaañu bi mu commencé génn ak sama mag di ñëw suñu kër seen commencement génn muy ñëw suñu kër di fa yendu ba guddi man ma koy gunge muy ñibbi lu ñu am foofu lañ koy bokk moom d'ailleurs suñu waa kër yëpp dañ ne woon sax samay dafa liggéey sama yaay parce que sama yaay da kaa jëloon teg ko ci kaw ba mariage am procédure bi sama mag voyagé sama mag bi mu voyagé contrat bi mu njëkk signé ñu fay ko xaalis sama yaay daf ko ne jëndal kër mu ne du jënd kër day takk xale bu jigéen bi sama yaay wax ma ne ko ah bàyyi ko mu takk ko parce que loolu la bëgg loolu mooy initiative am nit doo fi bàyyi nit mu toog di la xaar xamul kañ la waru garam sama loxo la jaar maa demoon jëli ji ko mu yónnee ko xaalis bu bari bi ñu demee ba ñu nee mariage bi suba la ci guddi mu jotee ak sama taawu yaay xeex ak kooku kooku nga xam ne du dóor kenn du dóor du dóor sax mbóot bay dóor kenn ci biir kër gi jàpp kooku jaxase ñaari jabaram ba ñaari jabaram yi di xeex kooku joteeg moom mu dem police ne day porter plainte kooku bi ñu nee suba la mariage bi ci koo xamante ne dañ kaa war a takk mu ñëw sëy si waxatuñu loolu ñu négocier ba mariage bi am mariage bi bi mu amee ñu def lépp muur ko ci ëllëg si mu sëy si et tout moom ak xale bu góor bi période décembre bi yëpp xale bu góor bi dafa ñëwoon vacances fii mi ngi fi ñu nekk ñoom ñaar jugal bàyyi yéegal bàyyi saal bu muy nee foofu la doon fanaan ñun ñëpp foofu lañ doon fanaan man moom sama yaay ak Ami ñun xam nañ ko bu baax moo tax li mu wax démb noonu naqariñu moo tax ñu dugg ci ba keroog muy naan ay septième mois dafa dem kër papam waxul dëgg suñu kër la toog ba keroog muy wasin bi muy matu ci jour boobu dafa doon taw guddi boobu Ami Diallo boobu mu tëddal moo ko jàppale dem woo sama magu yaay suñu taawu kër kooku panike ñoo ko jàppale yóbbu ko ba polyclinique polyclinique la amee doom te bi muy bi muy toll ci huitième mois am xaw ma septième mois moom dafa jabet dafa dem ñu ne ko sa suukar dafa yéeg ñu programmel ko régi régime ba pare ne ko dañ koy opeere mu ñëw si kër gi sëy si jël sama yaay ak sama mag bu góor dëddale leen sama mag bu góor du wax ak sama yaay huit mois mu jaxase leen ñoom ñaar jël wujju peccor goom yi jaxase leen ubbi sama téléphone yaay jël vocal yi sama yaay doon yónni sama deuxième jabaru mag bi suñu ta sama taawu yaay bi yónnee ko aawa bi dégluloo ko aawa bi indi fa boucan bu rëy ñu wax jàppal bàyyi jàppal mu ne carrément du moom mu wàcc bàmmeelu yaayam nekkete yoo lu ñuy rumandaat ci kër gi yépp moom la lu xew day jël téléphone am woo kële su ma paree kali yónni vidéo yi muy wax xale bu góor bi di toppatoo doomam événement bu jotee xale bu góor bi mooy yónnee doomam xaalis yónnee doomam tissu ba man mii sama doom man sama mag bu góor da koy yónnee tissu Khadija lu muy ne dañ ko sama yaay da koy maltraité muy fanaan ci saal loolu moom la neex parce que moom moo jóge kër papam ñëw ne foofu lay dëkk man ak moom ñu nekk nii sama yaay lu mu wax ma ne ko ah bàyyi ko doomu jàmbur la bëgg naa man tamit bu ma sëyee ma am koo xam ne dina ma comprendre sama yaay moo jug ci lalam di tëdd ci basang moom mu tëdd sama kaw lal yaay su jugee sama yaay mooy lal lal bi kaas bu mu lekkee fu mu toog foofu la koy teg sama yaay moo koy jël raxas sama yaay mooy togg mooy raxas mooy bale jour bi ñu neena jël njël sama yaay ndugg ceebu jën ndugg cee ceebu keccax mu jël ceebu jën ak ceebu keccax yépp togg pour saboter sama yaay di wax ma ne ko bul wax noppil ne pat sama yaay lu mu wax ma tempéré keroog bi sama ma xamee ni sës naa ma woo sama mag bu góor ma ne ko gis nga bu dee sa jabar moo la gënal sa yaay ba tax nga bàyyi sa yaay doo wax ak moom mu fexe ba sama mag bu góor génn wutal ko appartement laaj ko lan moo ko génnee ci apartement bi dafa jël apartement bi ak ay raqam dugal leen ci ak ay faru raqam ñu nekk foofu di njaaba njale sama benn xaritu mag yëg ko woo sama mag wax ko ko ne ko carrément kii sa jabar lii la nekkee ci appartement bi sama mag bu góor ne ko demal nga toog lii sama mag bu góor ne ko demal nga toog sa kër pap li may wax dinaa ko wax ak sa pap Khadija bés bi mu wasinee jour bi mu wasinee sama kër yaay lañ ko ngéntee premier njëkkeem Kaliphone j'espère que envoyé na la message premier njëkkeem daa ñëw teral ko ba ñëpp toog mbokkam yaa ngi toog ñëpp te jour bi mu wasinee jour boobu lañ ko jubóole sama yaay ëmb na ba nu mu wasinee du wax ak sama yaay day tong sama yaay ci biir kër gi loolu yëpp ma boole ci rek di di nëx nëxal lekk Khadija si boppam ak Kaliphone moo a fen li mu wax du dëgg day fen Wave yëpp naa ko yu ko ji si boppam doon yónnee pour dund doomam si woos melolak yi ñu doon jënd ak couche yu ñu doon jënd yépp sama loxo la doon jaar man ak benn xale bu góor bu ñu naan Cheikh Mamadou soo ko waxee dina ko xam ndax kooku moo doon ñëw ba këram di ko yónni di ko jox lekk yi ak xaalis bi hôpital boobu mu wax noonu seetewoo boobu guddi boobu la woo jëkkër ji sa jëkkër ji woo ko ne ko sama doom moo ngi hôpital kooku yónni xale bu góor bi ñuy wax Cheikh Mamadou jox ko xaalis ne ko demal nga fay ordonnance bi photo boobu mu la yónnee ne erkaatam bi dañ kaa toj waxul dëgg doomam moo ko gaañ mu yónnee ko sama mag sama mag ne ko comme sama doom moo la gaañ dinaa la faj sama mag jël ko en charge de ko demal nga laaj laajte garab yi su ma paree naa la yónnee vocal yëpp kali ndax man lu leer rek laa bëgg man Khadija sëyam musuma si wax lu dul di ko defaral ci laa dëkk te chaque jour que Dieu fait day dëkk ci décevoir nit depuis mu dugg si kër gi daa jël kër gi yëpp jaxase ko def lu ko neex nu ko neex la doon sëyee ku sëyee nu la neex nag am lu am li nga xamante ne loolu nga mérito li mu mérito rek la am su duggee ci live bi léegi dina xam ne li ma wax lépp dëgg la te ñi may seetaan xam nañ ne li may wax dëgg la ndax ci biir kër gi la nekkoon li mu wax démb yépp ay fen la li mu wax tegu ko fenn ay fen la moom heureusement moom dafa war a remercier sama mag ndax sama mag dakaa fekk ci mbedd dimbali ko jàppale ko te yàlla tax am na yenn yoo xam ne sax kali bugguma ci yegg ndax jigéen laa jigéen du weer moroomu jigéenam waaye lu mu def dafa ñaaw yow xanaa boo seetu sax sa jëkkër nga seet sa doom ndax bu ëllëgee sa doom loo xamante ne ci réseaux sociaux lay des Khadija dafa am ay clan du ma wax la tey du jigéen bu baax lu mu wax démb yépp ay fen la du benn dëgg billaahi wallaahi tallaahi maa ngi koy waat kali Khadija sama kër yaay la toog ba keroog muy wasin polyclinique la wasinee sama doomu tànta moo ko yóbbu sama mag bu jigéen moo ko yóbbu mu wasin sama mag bu góor res frais yëpp kooku bu dëggee dina la ko wax frais yëpp la res ñoo ko fayal lépp ngénte ko ba mu baax te moment ngénte boobu du wax ak sama yaay mi ngi tongu sama yaay salaamaaleykum. waaleykum salaam. Amy Ndiaye na def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmb maa bu baax a baax. démb da nga nekkoon ci live bi na dañ la nettali. démb nekkuma woon ci live bi tey bi ma xëyee laa gis euh, dagg-dagg waaye euh, dégg nga xale bu jigéen bi li mu wax yépp yëpp dégg nga ko dëggantaan. déglu naa yépp waaye ñun man li ma dégg ci lu xale bu jigéen bi wax. waaw. man dégguma ko mu xas benn sa benn rakku jëkkër maanaam yow ni nga dugg nii wax ko fii. Hmm. moom bi mu ñëwee. yéen ñii rakk xale jigéen góor bi. Hmm. waxul dara lu ñaaw loo xamante ne jumla jumla ci yéen de. ñun tamit waxuñu ko man waxuma ko lu ñaaw de da ne li mu duggee léegi dañuy waxtaan rek. jigéen nga moom jigéen la gis nga àdduna ku nekk day juum ku nekk sëy la te yow jigéen nga. mais man damaa bëgg mu nangu ni dafa juum. parce que man ma rek moom bu juumee moom bu juumee fukk yow juum nga fukk ak juróom. non non man juumoo daal di sama mag da koo fekk ci mi. daal di koy dimbali indi ko man li ma wax ñun dañu ñëw rek pour defar xam nga man Medina laa dëkk déglu ma. gis nga ré 1 ba ngeen dëkk. man dama ne woon damay yónni ay kilifa ñu ñëw Medina ndax man ré 1 ba ngeen dëkk. sama papa nga fa dëkk ré 1 boo xamee ña fa sant daal. ré 1 engrais ngeen dëkk ré 1 xam naa fa bu baax dañuy waxtaan rek famille daat xam bu baax. waaw famille daat boobu man samay mbokk lañ samay papa lañ dama ne woon. waaw damay yónnee kilifa yi parce que bi ñu réer un angle rek réeru leen ma. Mm-hmm. parce mi naa benn benn benn bopp la. Mm-hmm. bi muy ñëw fii waxu doomam la fi indi ak waxu sa frère gis nga moom sa moom bu fekkee dafa fen dañ koy tegaat fii si kii bi ndax fii euh, euh, kali faralu kenn lépp lu muy def danaan lépp nay leer. sa frère waa déglu ma rek sa frère. moom ku côté doomam lay jooy doom ji muy jooy mooy jigéen déglu ma rek sa frère la yéen a bokk benn yaay. waaw ngi dégg xam nga moom jigéen la ñëw na fii wax. Mhm. waaye wax na ba pare tuddul yow mii di njëkkeem. yàqu mhm. yàqu la fi. waxuloo fi lu mhm. ñaaw dañuy waxtaan rek. boo ñëwee tamit défendre sa booy défendre sa frère. rafetal ko ndax doom ji judd daf judd ba pare tam moom bi muy duggee fii dem ci live bi. def na képp kuy famille ku góor ki rek. taxawu nga ko te waxul ni dafa aussi ne seen biir kër yéen seen biir kër la wax ni fa la amee doom. Mhm. wax ni ngeen ko tuddee ak ni ngeen ko ngéntee waxul ni ñoom seen kër la amee doom parce que Sénégal dañuy déglu live te duñu moo tax ma laaj la ndax danga nekkoon ci live wala dañ nettali. gis nga ni man man kenn nettaliw ma. li mu wax yëpp si live bi waaw boo ko déglu bi waaye xale bi waxul ni ñoom seen kër la aussi ne yéen Medina boobu. déglu ma bu baax soxna si waaw li may wax dégg-dégg la mm-hmm. laaj rek soo ma dégloo. waaw man dégg-dégg la laaj moo tax ma may wax ak yow parce que man démb maa ngi ci live ba fajar. déglu ma mm-hmm. nekkuma ci mm-hmm. live bi pour yàq ko wala quoi que ce soit. ndax démb bi muy wax ñëpp dégg nañ lu mu wax. moo tax man démb boobu laa bëggoon ngeen duggoon looloo lu ma wax la dama wax pour ngeen comprendre que Khadija nu mu doon dundee bu nee sama mag nekkul di res doomam ma ne Kali loolu du dëgg parce que man bi ma xëyee si suba bi ma gisee yëpp damaa toog jël sama temps lépp laa déglu. bi ñu divorcé numéro soxna si ñoom ñaar jël na ay responsabilités ci xale bi bi ñu divorcé nii. yéen xale bi déglu ma bi ñu divorcé jël na ay mm-hmm. responsabilités ci xale bi. lépp la jël ba ma soxna si mm-hmm. déglu ma rek soo ma dégloo di nga mm-hmm. dégg. Euh, FC ñu déglu ko s'il vous plaît. après ñu xam nga ñëw nga wax. Ah, de toute façon xaaral tuuti xaar leen xaar leen xaar leen. de toute façon xadi dina dugg ay xaritu xadi ñu duggu jëkkër ji mu tàggool dina dugg wax ji sénégalais nag ñoo moom seen nopp. loolu ku wax waxu dof sénégalais di ngeen xam ku dëgg ngeen xam fii day leer rek. waaw FC léegi déglu ko ami développé. ma ne man ñëw ma fi pour xas Khadija wala quoi que ce soit. parce que moom depuis tout le début yàgg na Khadija lan moo tax léegi na dañuy comme dañuy wax turu doomam bii mu jël xale bi balaa muy sant jàll Diallo Silla la ko njëkk a santale. Euh, Ami Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax Kali. delloo naa ziar. Kali damaa bëgg xolal boo invité nit. daa ngi dégg danga nga koy déglu bàyyi ko mu wax li muy wax boo waxee ba pare nga jël nit ñi ñu wax seen xalaat mais doo dugal nit muy wax soxlaam nga dugal ay nit ñuy dàggasante. comme boo dugalee fàttali si sama yaay la mais waroo koo dugal muy tontante kii kii di wax kele di wax mu naan ko da yàq kii ki naan ko yaa def ndàngam kenn du defee noonu loolu da ngay déstabiliser nit ki nga invité kenn du ko def da ngay dugal nit ki mu wax li muy wax ba pare nga dugal sénégalais yi ñu wax seen avis fekk ne moom dem na mais doo dugal nit mu taxaw di weranteeg moom ndax xamoo li muy wax loolu kenn du ko def man maa ngi tëj sama micro di déglu na continuer essai bi nga na bëri bi de ñu ngi lay déglu léegi waxal Farci Seye boo gisee ma yégal ko dama yaakaar day teg tëj micro déglu ba moom mu pare li muy wax buy intervenir mu intervenir waaye kii buy wax kii di wax moom kenn du comprendre léegi nañu déglu ami mu expliquer clairement bu dee Farci Seye am na lu mu ko bëgg laaj Farci Seye ubbi micro laaj ko mu tontu de toute façon ñeneen ñi dinañ duggu jëkkër ji en personne dina dugg le plaire fii bisimilah ami yaa moomee wax ji. Kali jëkkër ji bu duggee dina wax li ma wax exactement Khadija depuis mu divorcé ak sama mag man li war ci doomam yépp mu ngi koy def déjà de un nit boo divorcé ak moom teewul lien yi yéen a ngi ci ba léegi parce que doom sekki ngeen ko divorcé na ak moom voyagé na ak xale bi tàgguwu ko jongal na xale bi xarafal na ko tàgguwu ko bi muy dugal école xale bi tàggu ko xale bu góor bi ci boppam moo ko woo laaj ko ne ko ndax xale bi dugg na école dese bi mujjee am suñu kër xale bu jigéen bi ñëw na indi na indi na doomam bu jigéen Xadija ci boppam ñëw na ba kër ga indi doomam bi bi mu ko indee ba kër ga ñëpp laaj ko xale bi dugg na école mu ne waaw dugg na école mi ngi jàng bu baax papam bu ko duloon toppatoo man duma dugg ci live bi fii di am lenn lu may wax quoi que ce soit xam dëgg moo tax ma dugg ci live bi pour demantir ko wax ne lu mu wax du dëgg Kali maa ngi ak preuve yëpp FC su buggee preuve yëpp maa ngi ak moom Wave yi mu koy yónnee ak yépp dugguma fi pour xas Khadija dama dugg pour wax ko ni ko carrément ni mu defee dafa ñaaw loolu laa dugg pour wax ko ak ni mu defee du noonu parce que nit boo leen sëyee la moindre des choses lu mooy bon bon bon bon sëy ngeen ba am benn doom te au moins même soo leen sëyee am na benn ba jour boo xamante ne am na bànneex man ñun buñ doon wax lépp lu Khadija def fii yëpp kenn du fi toog loolu indiwuñu fi li mu def moo ñaaw démb moo tax ma dugg fii pour nekku démentir ko carrément dama ko démentir carrément li mu wax. dara du ci dëgg lan la lu ñaaw li mu ne xale bu góor bi resul doomam dafa bëgg ku ko dimbali ndax xale bi jàngatul te pourtant man am naa whatsapp am damay gis chaque jour mu dugal xale bi xale bi day boot saak dem jàngi ñëw xale bu góor bi day déggante ak Khadija xale bu góor bi ex jëkkër ji day déggante ak moom da koy laaj doomam Khadija lu mu bëgg xale bi lu mu bëgg day jox xale bi téléphone bi nee ko woowal sa papa su fekkee loolu du dugg na xa fekkee li may wax du dëgg na Khadija dugg mu wax du dëgg. d'accord li ma wax si lu leer léegi léegi tegal foofu sa loxo Ami Diagne tegal sa micro s'il te plaît. Euh, Eva Sow ubbil sa micro. xëy na xamul nañu bay micro day bëgg ubbi mu wàcc dina yëg Eva Sow xaritu euh, Khadija la. moom nee na fekkee ne lépp moom it daf bëgg wax lu mu xam donc moom laa bëgg dugal comme ça ñun nañu dégloo gum rek Adamo Fatou Cissé nañu dégloo gum xam problème bi après bu ñuy réagir xam nañu réagiré le temps Khadija duggoon na léegi mais connexion am dafa daw mu wàccaat Khadija boo nekkee defal demande ok def na demande ok Khadija ñëw na Eva Sow tamit dina ñëw ñu déglu leen ku ne sa version jëkkër ji tamit dinaa ko dugal tapate leen rek la famille s'il vous plaît Khadija bismillah Khadija dugg ñu ngi lay nuyu. ñu lay nuyu. yaa ngi def écho de. ok c' lan nga bëggoon dolli li nga xam ne Amy Ndiaye di sëru sa jëkkër bi lu mu wax lan nga bëggoon leeral Sénégalais yi. waaw Kaliphone Amy Ndiaye moomu sama ex jëkkër rakkam la déglu naa waxam bu baax moom moomu di wax lu mu wax yëpp dara du ci dëgg dëgg la ba may génn magam. dama doon ñëw seen kër moom oh, moom Ami Njaay moom bu dee day wax ak diggantam yàllam te moo ngi sëy am na doom lu ne defar naa leen ko ci kaw suuf boobu magam takkuguma bu nee na dafa dafa wax heure wax na dafa jot parce que démb nanguma dugg ci dara sama fii doom rek laa yamoon ba may génne seen mag seen mag yoru woon dara nawetaan la doon fubbal ñépp xeeb ko nag man may liggéey moom moom mooñ may dégg may liggéey moom Ami Ndiaye day jàngi du am xaalis ma koy orange ma ne pour muy ndékki pour mu am lu muy jàngi day bëgg a léttu ma na ma bëgg a léttu ma jox ko mu léttu boobu maa ngi liggéey jamono boobu wari moo xewoon wari ak orange ma ne yaayam moom wax yara daf may woo maa ngi fu may liggéey mu ne ma togguma ma yëkkati xaalis jox ko wala sama gaz jeex na Ami Ndiaye moom di wax feebar na maa ngi fi may liggéey yaayam woo ma ma déplacé ñëw ba seen kër boobu takkuguma de ma ñëw yaa jël ma am njaay daf feebar ma yëkkati xaalis jox ko ko ma ko yóbbu ko hôpital jour boobu c'est magu kër koo xamante ni magu yaay moo ko jur kooku woon loolu def naa ak moom xale bu góor bi joué na nawetaan may ànd ak moom ñëpp naa kii loo koy doyee fenkat la du waxkatu dëkk loolu ñëpp xamal nañ ko jukkoom tey ku dëkk Medina su demoon Medina tey na ko diw xam nga lu ñu lay njëkk a wax diw boobu du waxkatu dëkk. man loolu yëpp dama dañ ma ko nëbboon nee na ma dama jaxase magam ak euh, jabaram du dëkk yaayam bu ko jur mooñ may dégg yaayam bu ko jur xaw ma lan la wax ñu woo ma jubra fu may liggéey yaayam na ma diw nee na lii ak lii yaa ji ne ma soo bu dem kër diw ñëwal sama kër ko déet ba ma ne diw a wax kër diw boobu laa jëm mu ne man soo ñëwee taxawal ci bunt bi jour ma ñëw taxaw ci buntu ma ànd ak sama xarit bi te ko dinaa ko woo mu dugg mu témoin ko ñu dem ba ci buntu man ma taxaw yaa ji dugg wax li mu wax na ma kaañ dem réglé naa ko ñu dem ma bàyyi sedd magam bi deux jours trois jours bi naa sama mariage des na deux jours la xaw ma trois jours ma ñëw seen kër fekk euh, moom xale bu ma ma ñëw seen kër fekkoon dama kii wax xale bu góob ñëw fekk maa toog ci buntu bi dugg wax ak yaayam pare lu muy wax ak yaayam fekk ma toog ci buntu bi mu saaga ma ndey foofu mu gën a ñaaw jour magu yaayam yaa ngi woon foofu mu saaga man ndey fu mu gën a jaay ma delloo ko ko mu mbéj ma audio bi ñëwul de dégguma li nga wax ok ok Hadiza xaaral ki ma yeggal léegi madame Diaw allo madame Diaw yow mii la yëgal léegi yow yaa doon wax sànq wala du yow madame Diaw wuyu ma yow la woon wala du yow bul tëj sa micro ubbi sa micro ok xaaruma ci yàlla parce que dafa am ñu ma soxla fii ñoo xamante ni dañoo bokk si famille bi ñooñu laa fi soxla eggalil Xadija ma wër ñooñu. yaa ngi mu daggal ma saaga ndey fu mu gën a ñaawee man tam ma delloo ko mu songu ma mbéj ma moom mii magam bu góor. ex sama ex jëkkër ci boppam ma woo ko téléphone moo ma ne calme dama police quatrième nga pelent magam bu góor a ko wax ma dem police quatrième am benn cousine yaay bu fene day jaay ndékki kooku woo ma téléphone maa ngi ci police mu ne Khadija li ma lay ñaan mooy bul pelent bàyyi lépp mu sedd ma woowaat sama ex jëkkër ma ne ko diw nee na naa bàyyi lépp mu ne ma dumaa la ne nga dem def pelent ma ne ko naa bàyyi lépp ma woo sama papa sama papa ne ma jaru ko Maria nee na sama xaalisu wargal moom moo ko yor na wax ñaata lañ ma may wargal nee na xaalis bu bëri 400000 lañ ma may wargal 400000 lu nee na xaalis bu bëri lañ ma may 400000 bu dee moo jël woon wargal bi 400000 lañ ma may wargal te ñoom ba ñu ñëwee 400000 ñëpp xam ne xewut dama jël baas sama xaalis li ma sol ñett sañse yëpp maa ko sañse sama xaalis. baas bi maa ko fayal sama bopp toggukat yi maa ko jëlal sama bopp ñoom seen waa moom mi moo nekkoon deuxième njëkke moom li ma ko teral sama xaalis laa ko teralee magam 400000 la yam magam yére olof xew bi man maa ko ko bu weex ak daal yi maa ko ñu ñaw ko yaa ngi dégg ñoom may saal moom moom di wax laaj ko ñaata yoon laa déplacé dem këram di ko kalaame yaayam ak magam bu dee day wax te yàlla tax nee na dëgg moo ko tax a dugg ñaata laa dem ci moom kalaame ko yaayam ak magam moom ci boppam mu ne ma su ma sañoon doo topp sama yaay sama yaay nii la mel xoolal ci man ndax man duma la ko def mu ne ma sama mag ñëpp xam nañ dafa mun a fen di waxkatu dëgg moom ciiru ami ciiru moomu moo ma koy wax mu ne ñëpp xam nañ sama mag di waxkatu dëgg bu ko topp ci lu muy def ma ne ko amul problème moom ciiru moomu de ma ne ko benn problème saa bu ma yaayam defee lu ma métti wala magam damay dem ci moom wax ko ko kon man tooguma fii pour yàq leen ndax démb ba may wax limuma seen tur ba léegi turu ku góor gi waxuma ko ma sama mbir doom am naa ci doit sama doom année bee passé dafa doon jàng maa ko fayal sama bopp kenn fayu ko ba ki salaatu fatiha yàlla bu ma yeew suba fayu ko musul xam sama doom école bu muy jàngee xamul école bi xamul paiement bi doomam billaay walla watallaaxi du su la neexee ma capturé la ko lépp nga dugal ko nga def ko noonu xam nga ñaata la fi yónnee doomam des fois cinq mille aw lu ma ciy nëpp cinq mille te suy wax du wax man de day audio doom ji na ko yónnee naa la cinq mille dama jënd pizza nee na day dundal doomam musul dundal doomam ba mujjee doomam ba mujjee feebar nii nii am na benn cousine moom te mbalit lay liggéeyee suñu koñ bi fii seen oto mbalit day ñëw fii kooku moo tasan tax man ma jóge hôpital ak sama doom kooku bu dee moon may dégg dina dugg wax ñu naan caam ñu naan ko caam mu tasan man maa ngi wàcc teg na man Xadija lan moo dal aali ma na ko dafa feebar wallaahi ku dee ak sa bambe kooku moo dem ba ci yaay xale bu góor bi mu ne ko wol sa doom nga ko doomam dafa feebar jour maa toog ci ci bi ak sama mag bu topp ma gis sama ex jëkkër woo ma naruma ko jël sama mag bi ne ma jël ko ma jël ko mu ne ma yow sama doom dégg naa dafa feebar ma ne ko ku la ko wax mu ne ma jaru ko ma ne ko ma ne sama xel xam naa ki wax ndax ndey taam laa tasanta jour boobu mu yónnee dix mille francs mu ne ma naa jël taxi yóbbu xale bi luñ ñu bind ci ordonnance ma ko ko te loolu yàgg na ngay taam moom bu dee moo ñu may dégg mën na dugg wax ma ne ko d'accord ma yëkkati dem bañ bindee ordonnance ma woo ko téléphone mu yónnee ma jour boobu quinze mille six cent xaw ma ma jënd ci ordinance bi papa xale bi day toog ak man six mois trois mois du déggante ak man dund xale bi ñëwu fi am na cousin ba ñuy naan Cheikh Mamour sama parce que kooku yàlla dafa def ni lu mu fi indi yàlla dafa def ni kooku lim fi indi dama koy sinap ndax lii laa doon suuraa ndax soo nekk googoo xam te fenkat la du waxkatu dëgg lépp da ngay am preuve am kooku dara boobu sama doom ba muy indi sama doom a am un ñaar yoon la fi indi yére xale ñaar yoon la fi indi sio sel rek ak balu kuus lépp sama sinap bi ma foto kon ñoom suñ ne moom moo ngi dundal doomam li doomam bëgg suba ba ngoon man kat dëkk man damay taxaw assumer ndax man mi dem ba dugg ci sa life wax kon li may def xam naa lan la ragaluma fu ma jëm moom moo di wax nee na yor na sama numéro dëgg la dañuy déggante wat moom day xool sama statut damay xool na fi moom moom ciiru moom papam gaañu na fi ñu wax ko ba temps su ma neexoon ne ñoom duñu moom ami ciiru moom di wax mun na la wax suñu kër nii la mel musul ñëw suñu kër benn yoon la fi ñëw loolu yàgg na fekk na boo maa ngi doog xulak sama ex si jëkkër xale bi feebar sama ex jëkkër yónni ko naka dama Xadija mu jox la xale bi yaay parce que yaay moo xam xale bi foo ñu ko cinq xam mi la xaw ma affaire xam mi xale bi fa mu dem ci xam bi ami tiiru suuf jiwoon ne dafa demoon wékki ay bëñam mu woo ma téléphone mu ne ma xale bi laa di ma ne ko yow fi nga taxaw nii kon yow xamee suñu kër mu ne ma foo ne côté bii ma ne ko déedéet côté bii la maa wàcce joueur jox ko sama doom mu dem ak moom joueur moom ba xale bi bañ koy indi yaayam kuusu woon sax xale bi te boobu xale bi dafa doon kuusu dee xool sama statut damay xool statut papam gaañu na fi ma koy woo pour jaale ko nangu jël sama appel nee na demoon naa seen kër dëgg la man maa toog ba mu neex ma ci weer bee ñu génn am na seen benn taaw boo xamante ni déggante naa ak moom am na seen benn taaw boo xam te ni taaw famille bi la parce que seen doomu mag ko jur kooku maa ko woon ko dinaa fa ñëw jaare si tata parce que doomam dafa gaañu te ba ma ñëwee dama nuyu ñoom ñëpp yaayam moom muy wax dañoo ne ko diw sa sëta ngi mu ànd ak bi génn ci biti dem ci magu yaayam boo mu wax ne magu papam boo mu wax mu ne man maa ko jaxas ak ay jabaram mu jël xale bi te kooku ba ma fay jógee daanuñu woon wax mu jël xale bi yóbbu ko ci kooku kooku yëkkati 500 may ko xale bi. moom yaayam moom maamu xale bi jël trois cent may ko sama doom xale bu góor bi ba muy wax noonu magu sama ex jëkkër jour boobu la may doog a tudd fekk ma ma toog mu ñëw mu ne ma Khadija ça va ma ne ko Lamine ça va ñu nuyante kon xanaa man bëggoon naa sékkax ñoom jàmm man amul ku ma woo ba ci papam boo xam te moo yaayam dañ tàggoo papam ngi caaroy azur papam woo naa ko fi Sidiki Diallo ma ne ko wax ak sa doom dundal ko kon man nëbbuma lu may def ñoom nag lu leen neex mën nañ ko wax waaye man loo xam te moo am moom laay wax man du ma sosal nit ndax bëgg am dëkk. ok ok dinañ ci ñëwaat léegi euh, am na koo xam ne dafa bokk ci famille bi euh, dama xamul kan la fi compte TikTok am mais bon c'est pas grave Khadija yow ki nga dugaloon muy Eva Sou jëloon naa ko mais réseau moo daw. Eva Sou Tali mën nga jël Aidi Dia moom laay jël nii moom laay jël may ma rek man xam naa ne may organiser Aidi ubbil sa micro. tëjal sa micro ami s'il te plaît tey di lan mooy problème bi diggante xadi ak jëkkër ji ak doom bi comme yow it xëy na témoigné nga si côté famille jëkkër ji bëggoon wax sénégalais yi déglu jëkkër ji dina dugg nag sama gars yi ah ñu déglu rek ok salaamaaleykum ba man maay Ami Diallo comme li muy wax depuis sànq yéen ngi dégg tur bi ami ami man la ami man euh, de base dama ne woon sax du ma dugg si appel bi parce que dama waxtaan ak sama yaay instant moo ngi Sénégal mu ne ma bëgguma la dégg si genre affaire yi mais là c'est un sujet sensible dama woo ko waat ne maa maa ngi jégalu ndax mun na am sa permission dugg parce que c'est un sujet sensible et là suñu demee ba xool ba ci bi ñoo ngi dépassé contexte su sujet bi parce que de base la go elle a carrément dit que moom toppatoo ñu ko dañ ko abandonné trois mois ak doomam de base ce qu'elle a expliqué mais xoolee ba ci biir instant yu weerante moo nekk di am ay diw defal naa ko li balaa may sëy si ay diw bu defal naa ko nii balaa may sëy si comme du ma la ko waxee wat sur WhatsApp maanaam euh, ni ma la ko waxee sur whatsapp su fekkee ne weerante dafa nekk di am Khadija nga baal ma sama tant nga ma ak yow mosu si am benn problème Khadija jour bi muy wasin sax man maa man ak moom ñoo fanaan man maa jug daw woo nit yi bu ñu wàccee ko parce que xale bu ndaw laa man maa ngi doog a dugg samay 25 ans aw ma borom kër. donc affaire sëy xaw ma si daara donc je même pas rentrer dans le sujet naan ay dund na lii si kër gi def na lii def na lii parce que ñëpp xam nañ sëy sëy la. xale laa dugguma sëy mais xam naa ne sëy sëy la donc je vais pas la dénigrer si lu mu dund si sëyam tuuti naa trop pour def ko parce que donc doom kese képp dong laa si si kër gi donc je suis trop petite pour la dénigrer ce qu'elle a vécu man li ma fekkee laa laa wax mu ne du lekk duñ ko toppatoo mais yow sa sa jëkkër nga baal ma est-ce que musul gis sa doom loolu moom mun naa ko weede seede musul gis sa doom moom bi ngeen bi ngeen bi ngeen wëssin sax moom defe naa mu ngi France la ko fekk tout devant moi je parle su fekkee li may wax dafay ay fen la ngeen leeralal ma ko famille bi parce que je peux pas me permettre balaa may dugg si euh, si euh, si appel bi dama demander permission samay bàjjen sama pap sama yaay ba ñu ne ma waaw may doog dugg si appel bi donc je peux pas me permettre de raconter du n'importe quoi wala di ko juger moom si sëyam wala di dugg si ay sujet sensible ay waaw ay defal na ma lii diw ñëw na ma ñu koy yóbbu si ay xamba mais yooyu yëpp xam nga ko si kër si kër gi te pourtant tu es resté dans la famille Khadija tey ji yow yaa nekk di weer sa bopp Khadija yow nga ne sa doom nga doon lii da doon mais n'empêche ba léegi moom sa explication soo leen ko déggee ba léegi moo ngi déggante ak famille bi am na ay numéro ay famille bi bay dem di jaal ay dëj donc ce qui veut dire elle était toujours en paix dans la famille donc tey jii nii yow yaa nekk di weer sa bopp yaa ngi li ngay def amul benn sens comme ni ma la ko waxee nopp moom ak borom man ak yow ñaata at déggante ñu plus de trois ans toi et on s'est pas parlé bi nga ñëwee kër ga man ak yow problème boobu ndaw te man ak moom musuñu xuloo ñëpp xam nañ ne Ami Diallo man kafakre du ma xool mag si ma muy sama tante muy moom di keneen ak keneen man ak yow ñoo doon fanaan si saal bi tëdd si benn lal balaa ciiru du sëyi mais yow yow bundu xataal ñu la sa sa kër lal mat laa bu baax la la jëndal lu tax nga fanaan mais kër gi pourtant ñàkkul beneen néeg bu nga mën a fanaan mais xam nga kër famille am nu mu demee lépp si yoon lañ koy teg lépp si yoon la ñuy teg moo tax mënuñu jël benn néeg la la am Khadija duggal fii mais toi tu sais bel et bien que y avait une chambre libre dans la maison man sët kese si kër gi te de base yaruma si sëg si kër gi dama fa ñëwoon noonu rek tombé sa situation tombé yow nga sëy sa kër gi donc nit nit doo nekk pour Khadija ni da ngay gër gërëm ñamu dë ñamu daaw na rafet ak lu mu munti demee am na doom ba am nga si doom ba pare na rafet bu doon may yow dans toute transparence bu doon may yow ak lu mu munti demee jamais de la vie même su fekkee ne xale bu bi faalew ma am naa bant ak moom dinaa xool si sama doom boobu ne ah su ma affiché sama bopp de ëllëg de sama doom dina dégg lii te yow xale bu góor bi bëgg na la bëggoon na la bëgg boo xamante ne ku mu tuddee sa doom raq raqam la raqam doomu baayam la tuddee sa doom ndax fu mu teg Ali Diallo boobu Ali Diallo boobu sama nijaay la man maay man man maanaam si doom yi man maay taaw si Diallo bi man maay taaw donc li nga def nii ñaaw na trop rafetul benn yoon même si tu donnes pas à manger man personnellement man soo ma woowoon comme comme comme tu l'as fait aujourd'hui yow yaa dem ba woote yow yaa dem ba woote ne ah jàppale ne buñ buñ ma dugal buñ ma dugal si ah, live bi. yow yaa woo sama tante ne ko ah, ah waxal la waxtaanal la Ami Diallo ne ko bu mu dugg si live bi parce que yow xam nga ni que maanaam lépp sama kanam la lépp dund naa ko ak yow lépp laa fekkee mais du ma la weer parce que jigéen nga te da nga sëy si maanaam sant bi dem na ba pare maintenant dafa war a rafet. na rafet man nag damay liggéeyi suba maa ngi di bàyyi maa ngi jégalu. d'accord jërëjëf merci dégg nañ li nga wax donc.